candidate à la présidentielle Sénégal franchement euh, candidate à la présidentielle en 2017 pour moi, c'est une évidence pour moi, dafa nekk lu yomb pour moi, dafa nekk lu ma war billaay daf le parce que je fais partie des femmes qui ont tout compris qui ont tout compris waaw tey Si je bëggee diriger je veux faire le Sénégal veux suñu le Sénégal? il faut que je suñu ne si kaw veux pour nga politique moo la fay yóbbu. actuellement yaa ngi pour ñu. maa ngi sensibiliser xalé yi pour nous euh, inscrire sur le fichier électoral maa ngi sensibiliser xalé yi pour ñu gën ma djégé maa ngi def li pour créer des structures yo xamné sama xalé yi dina fa mëna dina ci mëna dina ci mëna si mhm. parce que moi je fais de la politique de développement. maa ngi si rajo yi maa ngi si ginaar yi pêche bi. ngi mais c'est avec passion par mais goudi nak da ngay sonn. Ah nga sonn de. waaw guddi da ngay sonn waaw. gis naa tam li ngay voyage bari na trop. kuy politique il faut nga voyage <laughs> diaspora bi kay moom il faut nga ñoom seeti leen nemmeeku leen tuuti. candidate à la présidentielle neexulu kenn Kennedy, du toog sa du toog sa studio rek ne je suis candidate il faut descendre sur le terrain. kon yow commencé nga liggéey bi absolument proximité bu baax sax xanaa dégg gisuloo ma temps yii 2S 2STV ma doon mhm. lancé souvent nos lagunes. gis naa la. ah lan moo waral ma gis que lagunes yi dafa woowu Sénégal si proximité. dëggu si dëkk bi moo ma permettre ma gis carrément que lagune yi géegu Ndaayaan géegu Somone bi ah, même lay lagunes de Tambacounda yëpp yu si bëri dafa wow. saison sèche bi mhm. lan le problème de curage il suffit tout simplement ñu xoss fond lagune bi. Mhm. pour permettre que lagune bi bañ comme ça ndox bi ci jaar jaar en permanence et puis ça va alimenter euh, les lagunes du Sénégal ça va créer de l'emploi parce que tout le monde aime euh, bien habiter en bordure de mer ou bien de lagune. Mhm. mettre son hôtel ou bien son restaurant. il y a tellement tellement de choses à faire au Sénégal énormément de choses à faire au Sénégal énormément beaucoup de choses c'est tout et puis actuellement, tout le pays est à refaire. Ah bon Sénégal, yep, tout le pays est à refaire. Regarde les routes. ah le fi Ablaye Wad def lu baax la. Mhm. Macky Sall mi ngi continuer. Mhm. ah l'État c'est une continuité ah soo fi jógee keneen mooy ñëw tamit Il y a nekk man ah. ah yow boo fi nekkoon tey lan nga prévoir pour def ko pour Sénégal. gis nga suma fi nekkoon rek ngeen xamné am ngeen président de la république président de la république bu baax. Mhm. président de la république bu yeewoon mhm. président de la république bu jege population mhm. président de la république bo xamné du hésiter dam université une maladie seeti jox gëdd chef religieux hein ah ñu son ñu xettali leen puus xale yi ñu tak fal len ma ngeen xol dinañ la fal day sole ma falee di ngeen xamné am ngeen président de la république Sénégal bi pour defar ko dafa yomb defar. loolu la ñëpp wax nag. avec générosité Macky Sall on a bi beau dire mais générosité bi dessna nak pa këpp xalé yi waaye te pousse leen tak tàkk. këpp xaalis xalé yi. waaw financé créé na ay euh, an ANPEJ hein, agence de l'emploi amna am na lu bëri yu mu créer waye na leen gëna pousse ñu tak